alors ki internet yi ñu topp ki ñu toogal ni nag kenn dootu ko présenté xammee ngeen ko ci ginnaaw Waly Balago Seck euh, moom mu koy këral baat yu neex yooyu ngeen di dégg ci ginnaaw moom la alors ñu ngi lay maa ngi leen di fay mbaa yi nga am tawféex waaw maa ngi leen di ndokkale ci safar gi ñu nekk waay waaw di leen ñaanal jàmm di ko ñaanal sénégalais yëpp waaw yàlla jàmm yàgg macha allah. d'accord euh, tey euh, noo jàngatee safar bi nga xamante ni Benjamin organisé na ko sànq dégg nañ Lille Pro ni c'est fois mu koy amal. waaw mais loolu moom je pense que ñi ñi xam Benjamin duggulet ci ñoom parce que safar moom chaque année nii lay demee voilà dañuy woon ni ñu ñu toog bernde sant yàlla ndax suñ toog daf ne kaay leen kaay leen kaay leen sant la mu suñu borom. xam nga yéen ngi gis depuis sànq si di ma insister insister insister insister exclusivité bi daal di jox nag xam nga li mu dee sama 10 ans États-Unis génn. Ah ok. Eh, macha allah très bien. visa États-Unis waaw mais loolu. loolu loolu loolu loolu day firndeel que ni liggéey bi moom amul ab. voilà donc man revenir tuuti en arrière rek. que safar gi moom ñu bari gis nañ ko ñi xam Benjamin xam nañ chaque année nii lay demee chaque année dañuy woon nit ñi benn ndax yàlla euh, suñ tuwaa def ne kaa leen sant dama suñu borom. donc bu ñu duggee ci safar gi nag moom dañ koy commencé ba keroog ñuy egg ca dix-huitième jour ba rek donc looloo tax macha allah vraiment. mais gis Lil Pro mi ngi jooy quand même. Euh, Wally Seck utal ko visa États-Unis alors jooy yi lan moo ko waral lan nga jàpp que ni moom la yëg. waaw mais c'est normal c'est tout à fait normal c'est tout à fait normal parce que gis nga gis nga gis nga Wally yii mooy yi yi di nëbbu sax yi ni ñi gis waaw lu ne lañu koy def lu ne dañ koy defal voilà lu yéene nañu lu ne donc Lil Pro bu ko yàlla dimbalee Wally dimbali ko utal ko ba mu am 10 ans visa États-Unis donc loolu ak cant la mbégte la xol bu sedd la te xam ne mérité na ko da ko fay xaar voilà c'est un gos un digne sama rakk mais il est digne il est sérieux te ku gëm liggéeyam donc macha allah yàlla na ko yàlla dimbale ba yeneen yeneen xéwal di ci yokk ci barke Seydina Mohamed est-ce que euh, hasard am na quand parce que bis bi mu tombeel gis nañu ni magam di def safar Wally Seck di ko di ko woo muy insister fekk boobu ñu ngi def entretien euh, bi ñu paree mu dem ci ginnaaw wuyu ko mu xamal ko ni ko visa États-Unis bi génn na quand même mais bis bi mu tombeel waaw mais euh, sëñ Bamba moom liñ naan amul tànki gannaaw tànki kanam rek la am firnde baa ngi nii Lil Pro nekk na koo xam ni ci yoon bi mu nekk mooy bëgg na yoonu Serigne Touba. gëm na ci li mu nekk te murid sàdix la donc te lépp lu am rek danaan suñu borom bu ko dogalee rek moo am voilà Lil Pro man moo ma njëkk Ramadaan mais tukki naa tukki tukkiwaat ci gannaaw mu toog gëm ci gëm li mu gëm nekk ci lu mu nekk nekk ci liggéeyam donc lii bu amee sa Tuubaa da koy wan ni man sama njaboot fu ñu nekk dama leen di te ce n'est que le début ñu début ba la rek macha allah voilà noonu la demee. jamono ji coow li bëri na biir Ramadaan wax ji bëri biir Ramadaan Faramareen am Faramareen indil Faramareen am Wally Seck indil Wally Seck quand même mais yéen ñi ànd ak moom noo leen di dundee jamono ji coow. en tout cas juste pour dire aux Sénégalais que ñun moom le moral est bon nous on gère ñun moom min nañ coow min nañ wax détail ñun yàlla moo ñu moo ñaale noonu Ramadan waaw commence en commençant par Wally Ballago Seck yàlla moo ñu moo ñaale noonu que ni coow fu ñu jógee rek coow day ànd ak ñun mais yàlla def na que ni commençant par ci leader bi. moom dara mënu ko déstabiliser tout le temps day wax lu mënti am rek gars yi dañ focus ci liggéey bi ñu bàyyi xel ay wax yooyu yooyu lay des yooyu lay jéem a déstabiliser ak yooyu <clears throat> mooy parce que dañoo am benn esprit d'équipe boo xam ni lu ñëwandoo dalee suñ kaw ñun ñëpp koy àngandoo duñ ko bàyyi muy dal ci kenn maanaam bu ñun ñëpp dañuy jéem a dem mu dal suñ kaw ñun ñëpp moo tax lu ñëw dañ koy gérer donc en commençant par Wally Ballago Seck ñun on ne fort d'esprit quoi donc moo tax yu bari mënuñoo détaillé mënuñu détail yu bari mënuñoo dérangé. Mm-hmm. Euh, gis nañu euh, soirée bi nga xam ne moo am démb euh, ñu gis ki nga xamante ni moom mooy nday njaay Ndiaye Banaya ñëw na fecc ci biir soirée bi alors noo gisee accueil bi nga xamante ne public bi accueil. waaw mais c'est normal Ndeye Ndiaye Banaya artiste la <clears throat> jigéen la waaye artiste la mi bay waaram nekk ci lu mu nekk yàlla def am ñu ko ci bëgg. di ko ci suivre sopp ko donc euh, kon c'est normal bu ñëwee public Wally Seck accueillir ko parce que artiste te li muy def neex na nit ñi donc kon c'est la famille daal donc c'est la famille. dañ doon dégg bëgguñu bëgguñu alors démb ñu gis leneen loo xamante ne gisuñu ko. c'est le Sénégal Sénégal Sénégal Sénégal ngoog voilà esprit du maanaam benn parti sénégalais seen esprit ñoom bu ñu nee bëreet mën nañu bëgguñu bëgguñu mais après dañuy bëgg. waaw te Ndeye Ndiaye nag wax dëgg fa yàlla yàlla def na mi ngi ci waaram di ko bay donc macha allah man je lui ko que ni li am am na ba pare rek na continuer liggéeyam nekk ci waar wi loolu rek la voilà <coughs> mooy mu gën a takk sërëm takk ndiggam di liggéey ñàkk jariñu lool rek am solo parce que jamono toll na foo xam ni jigéen boo nekkee surtout ci musique ci art li lay yàqal day bari quoi donc kon na fas jom gën a focus ci liggéeyam. buy bàyyi xel waxi sénégalais aussi bu dee loo xam ne lu koy ñaax la mu gën a am jom voilà mais d'une part ci yeneen côté yi jar mu leen di bàyyi xel na nekk ci li mu war a nekk rek voilà yàlla gëmul nelawul te lépp lépp lépp lépp ci suñu borom lay mujjee donc yàlla rek a fa nekk ku ci nekk sa wërsëg da nga koy lekk incha allah. dañuy wax que ni naan ko fi nga nekkoon ak fi nga nekk léegi bokkul na nga moytu lu bari lan lañ bëgg a wax. comprendre ma. fan la nekkoon. Sidi Diop. waaw waa mais différence bi nag mooy dafa am fu mu nekkoon dafa bëgg ñëw ramdaan loolu mooy difference bi da nga ni bokk na kon léegi comme ni nga ko waxee bokk na dafa am fu mu nekkoon mais léegi ramdaan la ne comme ni nga ko waxee comme bokk na ramdaan la ne dafa am waa ji am gaañ dafa am waa ji am gaañ mu ngi mel ni bugguma sax méngale affaire yi. ma revenir tuutiwaat waat génnaat ci concept boobu ñëwaat ci concept safar gi dafa am gaañi am Serigne Touba ma sañ koo wax sax ñu jëggal ma ko bokkul sax concept yi waruñu ko sax dendale exemple boobu laa lay jox maanaam dafa am daan am gaañi ni mu ko ñu xam xam ni duñ ñeexu ñebe kenn de loolu gaa yi wax wax wax buñ ci nekkee ñu xam ne nekk nañ ci waaw non non non non pas guerre sur réseaux sociaux ñu réseaux sociaux intéressé dañ koo mën ñun ku ñu ñam da ngay am problème. da ngeen mën joxe xaalis. ay ndeysaan même boo bokkul ci ñun sax ba yéeg suñu seen benn yoon da ngay am problème da ngay am problème farmaare ni bu ñu la sotee da ngay am problème waaw loolu la loolu la demee. lan ngay wax ci digganteem ak Awa Banaya parce que gis nañu ni ñoom ñaar peut-être seen diggante am na lu nga xam ne xaw na koo demee quand ñu nekk ay jigéen te ku nekk xam ne ni coowu jigéen bu tàmbalee du jeex lan nga koy wax ci digganteem ak Awa Banaya parce que gis nañu démb li nga xamante ni moom moo jot a xew ci kaw chaîne bi euh, gis nañu wala liir nañu que ni ñoom ñaar seen diggante des waaw mais juste li may wax que ni euh, gis nga deret dafa garaaw ñaar ñu xës ba bokk nañu sénégalais nag ci dafa am ci benn côté boo xam ne dañuy jaxase ay détails quoi mais Awa Banaya ku am xel mu sell la Ndeye Ndiaye Banaya ku am xel mu sell ma la se ku am xel mu sell la showbiz mooy indi parfois yenn détails yi rek mais ñoom ñaar xamante nañu après dañuy wiiri ci gannaaw ñooy gisante donc xamante nañu non moo tax ne la showbiz moo day waar rek ñoom ñaar wanewuñ dara public bi ñooy jéem a force loolu nit ñi waaw public bi ñooy force nit ñi. ki nga xam ne moom mooy Awa dafa indi Yirim te diggante Yirim ak Ndeye Ndiaye Banaya. ceux qui ne comprennent pas waaw moo tax mooy li ma la wax sénégalais dañuy jàpp li ñuy jàpp rek la ñuy mettre à l'avant mais Awa Banaya ndeña Awa je veux dire amul pour indi kii wala kii parce que moom dañ ko indi ci groupe bi muy liggéey nekk ci liggéeyam donc c'est pas elle que muy indi nit donc il faut que ñu def attention moom indiwul Ndeye Yérim Ndeye Yérim artiste la centre jour boobu ñëw boof suñu seet mu ñëw yeeg tombé ñoom ñëpp ñu nekk fa donc je pense que ni Ramadan comme ni ko suñu patron waxee benn boos sax muy Wally Ballago Seck moom mooy. parce que nday bu fekkee ni euh, Ndeye Ndiaye Banaya ak Yérim seen diggante neexul ñu ñëw indiwaat ko ci kaw seen bi est-ce que loolu aussi mënu créer des problèmes. kaay ma wax la xaw ma nag day xoo nañ wala déet mais buñ neexoo it buñ yéegee ci kaw seen musique bu leen boolee dañuy kaf dañuy foodree ñu ram daal loolu lañ xam nit bu ñuy dëkk nag bañ ak làmmiñ ñu dëkk parfois ay nit mën nañu jote jàppante ca àll ba nekk biir ramdaan mais bu ñu yéegee ci kaw seen bi ci biir jeu bi rek dem nañ ba ku ci nekk la nga jàppale jeex na ndax dañuy communiquer donc artistes yooyu ñoom même bu ñu jàppantee en dehors Ramadan bu ñu bokkul Ramadan jàppante bu ñu yëgee ci kaw seen Ramadan lépp jeex parce que harmonie bi leen nit boole la ñun on travaille dans l'harmonie ci ambiance ka forêt donc comme même bu dee nañu jàppante tamit ay détails la rek après lépp mën na àndaat seen biir voilà. ka lañ favoriser ka lañ favoriser lañ favoriser yéen yéen yéen yéen dëng liin nu ko dëng da ngay jaxase rek de kan la ñuy favoriser. non non ñun duñ favoriser kenn nag ñun duñ tolloolee parce que ay diwa kii non ñun ñëpp a yem ci ñun voilà en commençant par suñu leader mooy fonctionner loolu Ramadan ki fa mujj ak ki fa njëkk ñëpp la yemale au même pied d'égalité te loolu bu ko demee ba am rek c'est grâce à ñi nga xam ne ñoo fa jiitu Papis Ndiaye mi nga xam ne moo fa jiitu moo njëkk a nangu loolu uuf ñëpp def leen comme ay moromam leader bi ñëw. mottali loolu donc kon c'est normal c'est normal donc ñun duñ duñ tolloo li wala ñu gën a li di wala non non non duñ fonctionné noonu awa ba Ndeye Ndiaye Banaya bu sentiree ñëw jouer suñu scène da koy def awa Banaya ci kër gi la bokk donc moom si mi ngi mën a liggéeyam bu leen yàlla boole ci conseil bi ñu daje liggéey koy def dans l'harmonie après ku ne dem maa ngi leen di jaajëfal yàlla na leen yàlla sàmm dafa leen jàmm di leen ñaanal safaru jàmm yàlla ñu yàlla yóbbu ci màggal gi ci jàmm ñu ñibbisi ci jàmm fekk fi jàmm ju baari ci barke Seydina Muhammad sëñ Tuubaa amul morom am leen jàmm bu baax a baax a baax jaajëf te